kii yi ci seen bokk si seen leeral maa ngi leen nuyu di leen ziar ci vidéo bi tey ñu fas yéene cee leeral njëriñ gi nga xamante ne raxasoo ak saabu ak ndox am na ko njëriñ euh, tey euh, virus yu bëri na fi vidéo bi vidéo bi circulé la fi mais am njëriñ bu am njëriñ moo tax ma ne naa ko leeral lii am ndox la tey su ma ñëwoon bëgg raxasu jël sama loxo dugal ko ci ndox bi kese dugal ko ci saabu bi da ngay gis ni lan virus bi donc lii powar bi mën nga ko xalaatee comme virus wala bokk bactéries yi nga xamante ni ñooy waral feebar da ngay gis ni lan du ñu dem fenn ok fi ñu taxaw la ñuy taxaw ne gëj mais tey su ma jëloon raxasu saabook ndox ndox ak saabu ok tuur si ndox bi pare dugal ko ci saabu bi par exemple ok dugal ko ci da ngay gis ni lan bactéries yi ni ñuy dawee nii da ngay gis ni ñuy dawee nii donc noonu la ñuy dawee Euh, boy raxasoo saabu ak ndox kon nañu fexé di raxas suñu loxo yi saabu ak ndox ak lepp lu ñuy raxas saabu ak ndox au lieu que ñu koy raxasee ak saabu kessé ok donc loolu la leen won tay ci vidéo bi nek leen ci jàmm